salaamaaleykum amateur de foot nuyu leen ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii mën naa ni 13 septembre 2024 ci wàllu tàggat yaram 12 septembre du moins dama juum 2024 ci wàllub tàggat yaram d'abord képp koo xam ne nii abonné goo suma chaîne YouTube bu ko taay bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi. soir dinañ wax ci kan kookee di FC ab Barcelone mu ngi noone wax ci Real Madrid Kylian Mbappé et tant d' autres joueurs mu ngi noone wax ci kan retour Gavi beeg wan leen vidéo yéeg lépp incha allah. loolu la ñuy ci table bi mais kooku ci di Kylian Mbappé ah, moom nag en ce moment là dafay réclamer cinquante cinq millions d'euros yi nga xam ne ah, Paris Saint-Germain actuellement waroon na ko jox mu ngi noone waaye te jamono ji ñu toll nii Kylian mu ngi foofee ci Real il est protégé par le Real Madrid Kylian Mbappé et ses nag euh, ont euh, donné rendez-vous dañoo am rendez-vous aussi ak euh, les dirigeants du Paris Saint-Germain ci suba gi démb mu ngi noonee am waxtaan goo xam ne ni dañ ko waroon a amal ci li jëm ci prime yi nga xam ne Viviane mu ngi koy réclamé 55 euh, millions d'euros yi waroon a jox euh, versé ko ci ba léegi nanguñu koo jox. Le clan du français mm, explique qu'aucun accord écrit n'a été signé euh, pour faire une croix sur ces 55 millions côté parisien. On explique euh, qu'il euh, y a eu un accord oral et qui fait foi mu ngi noonee ñoom Paris Saint-Germain nag dañoo jàpp na ne seen côté euh, Kylian Mbappé kàddu yi mu leen jot jox rek doy na leen que ni euh, moom prime boobee du ko jël waaye côté Paris Saint-Germain euh, côté camp Kylian Mbappé ñoom li ñuy réclamer mooy que foofee kàddu yooyu noonu jotuñu ko signé kon nag li war mooy que ñu jox leen seen 55 millions d'euros le PSG compte se baser sur la déclaration suivante de Kylian Mbappé avec accord que j'ai euh, passé avec euh, le président cet été. Euh, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l'ensemble des parti et à préserver la sérénité du club pour le défis à venir loolu la Kylian Mbappé génn wax ba tax nag moomee xaalis boobee farataalu ko woon li amoon importance mooy ñu déggoo ci yenn seeni i kàddu waaye kàddu yooyu da ko wax rek mais jëfewu ko woon si ñëw ko ba tax nag ñoom actuellement ñu dellu ngir bëgg jël seen xaalis kooke di Kylian Mbappé ak ay entourage am ci foofe ca mm, Paris Saint-Germain euh, kookee di déko nag wax na ci kan Dani Olmo nee na pourquoi avons-nous signé Dani Olmo nee na parce que Dani est le milieu euh, de terrain que nous n'avions pas nee na nag Dani Olmo milieu de terrain bi la nga xam ne nii ñoom amuñu ko woon te ñoom dañ ko soxlaa woon il y avait de qualité nga avait beaucoup de qualité dafa amoon euh, qualité yu bëree bëri doori mais Dani Olmo était un joueur qui nous manquait mais nag Daniel moom moo doon joueur bi ñu manqué woon moom mairie FC Barcelone qui joue très bien entre a baax entre les lignes d'intervalle euh, marqué euh, très bien avec les attaquants da doon dugal ay buts waaye di jaxasoog attaquants yi ci ay ay passe ak ci bu euh, tegu ci temps nee na Fermin de cela Fermin mën na def lu ni mel li nga xam ne Olmo moom lay moom lay nag dafa wuteeg kooku di Fermin Lopez nee na Fermine est plus explosive Fermine moo gën a yëngu bu baax a baax gën a gaaw aussi tamit c'est une combinaison de joueurs nee na njaxasoog joueur la nee na Dani nous apporte cette envie de gagner Dani Olmo moo da leen ni yokk euh, mën naa ni bëgg-bëggub gagner le Barça a toujours été un mélange de joueurs locaux et de footballeurs affirmés Barça dafa yàgg doon équipe boo xam dafay boole ay joueurs yoo xam ne fa lañ soqee kook ak ay joueurs yoo xam ne daal mën naa ni dañuy am envie di jaayante bu baax a baax ngir club ba jëm ca kanam a ki nga xam ne nag jaayante na ba clubam boobee jëmoon ca kanam a kanam ba jóge fa dem foofa ci Real Madrid mooy Cristiano Ronaldo génn wax ci ancien clubam boobee di Manchester United ak club actuel ak coach actuel bi mu yore Cristiano Ronaldo part de son retour Manchester United nee ma delluwaatee foofu ci Manchester United Club bokkoon naa ci meilleur buteur yi ah, foofee ca championnat bi mu ngi noonu j'ai fait des choses incroyables euh, lors de ma première saison j'avais 37 ans ah, dafa dama def ay mbir yu yéeme ci sama première saison ba ma delluwaatee nag boobu maa ngi am 37 ans et j'étais le troisième meilleur buteur de la Premier League te doonoon na euh, troisième meilleur buteur euh, Premier League bi j'ai marqué à chaque match de la phase de groupe en Ligue des champion chaque match phase de groupe Ligue des ma dugal même en championnat j'ai marqué 17 ou 18 buts j'ai un travail incroyable même championnat bi dugalul toll ak 17 ba du 18 bi def na liggéey bu euh, jéggi dayo bu extraordinaire kooke euh, ñu naan ko Cristiano Ronaldo ancien coach boobee di José Mourinho na doon coach actuel Fenerbahçe José Mourinho n'a aucun intérêt à recruter euh, kooke di Anthony ancien coéquipier aussi Cristiano Ronaldo foofee ca Manchester United mu ngi noonee mu doon joueur boo xam ne aussi jamono juñ toll nii Fenerbahçe daf ko bëggoon mais kooke di Mourinho moom it daanaka gone googe euh, frataalu ko daal moom daal ñëw kookee di Anthony soxalu ko ngeen xamee ko noonu waaye di leen leeral que ni gars yi ñu naan ko mën naa ni AEK Athènes a con avait conclu un accord avec David euh, Datro Fofana bi nekk foofu Chelsea waaye finalement transfert boobe dafa nar a échec nag ay jiixi jaaxa yoo xam ne daal am na ci biir espérons ñoom ñu remobiliser waat tegaat yëpp ci axe ngir mën a jàppale booy boobe mu mën a dem ngir am temps de jeu nag Chelsea googee xalaatu fa am loolee di temps de jeu ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee ngeen xamee noonu waaye que ni gars yi euh, jour boobee ngeen di gis doon ne euh, Léon Renildo euh, ci match bi nga xam ne amoon na Mozambique mu ngi noonu da doon sauvé benn bii bu waroon a dugg malgré ñoom ñoo gagné ba tànk ba nag faf dal ca loolee di poto ba moom ngeen gis noonu mu dagg noonu dagg bu méttee méttee métti ah jaraloon na ko def vraiment waaye dëgg dëgg bëgg sa dëkk moom dafa jéggi dayoo lu ne mën nga koo def waaye kooku di Cristiano Ronaldo wax na ci Eric Ten Hag di actuel coach Manchester United moom nag du may dara Eric Ten Hag moomee nekk na à mon avis Manchester United doit se reconstruire moom gis-gisam mooy Manchester United dafa war a defarwaat le coach dit qu'ils ne peuvent rivaliser euh, pour gagner la Premier League ou la euh, champion euh, la championnat mu ngi noone ou la champ ou la championnat ou championnat bokk mu ngi noone kookee di Cristiano Ronaldo la génn wax en tant qu'entraîneur de Manchester United tu ne peux pas dire ça nee na boo doonee Manchester eh, United mënoo wax eh, kàddu yu ni mel il faut toujours essayer de se battre pour remporter ces titres nee na bul di xeeb sa bopp à chaque fois da nga war di jaayante pour jël ay titres si Eric Ten Hag écoute euh, Rod Van Nistelrooy nee na bu dégloo Van Nistelrooy ancien joueur Manchester United peut-être euh, qu'il pourra euh, nous aider peut-être mën na leen jàppale bu baax club boobu di Manchester United il connaît le club kooku déglu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca euh, club boobee euh, di fa woyal di def ay jaloor yu am solo nee na on ne on ne peut pas reconstruire un club sans connaissance mënuñoo defaraat club sans xam xam-xam waaye sans xam ko sans xam club boobe ngeen euh, xamee ko noonu loolu la Cristiano Ronaldo génn di leeral la kooke di Sékou Guirassy doon la Guinéen bi dem rejoindre Dortmund récemment moomee nag changé na numéro bi mu doon tàkk au lieu de 19 léegi numéro 9 bi moo koy tàkk bi Aller yoroon jamono ji moom moo ko yore di Guinéen bii di euh, mën naa ni euh, Guirassy doon favori ci euh, ballon d'or africain yi mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee gars yi waaye di leen leeral que ni euh, kooke euh, ñu naan ko mën naa ni Manchester City nag ciblé na Wirtz ak kooke di Jamal Musiala waaye Musiala amaan na beneen club bu mag aussi bu ci nar a teg tàng war koo mën a jënd waaye boobu dañ koy def vidéo spéciale nag jamono ju ñu toll nii daal tout cas club yu bëree bëree bëree bëri topp nañ ko ngir mën koo jënd ñu jàppale leen mu wëyal jëm ca kanam kanam pour kooke ñu naan ko Musiala ngeen xamee ko noonu gars yi Kay di leen leeral que ni kookee di euh, Gavi il a fait son retour vidéo bi moom ngeen gis noonu ne euh, ñu bàyyi leen ngeen seetaan ko benn 10 secondes ñu ñëw kon ne ci moom. mu ngi noonee kookee di Gavi ngeen gis ko noonee euh, mën naa ni euh, actuellement def na retour am euh, foofee ca FC Barcelone commencé entraînement am ak collectif bi lu mu doon nouvelle boo xam nouvelle bu neex la pour FC Barcelone waaye li ñu leen leeral que ni Gavi moomee lépp lu mu mënti def ba ñëw entraîné teewut teewut mu ay match ci kanam tuuti lay doog a football nag prudence Barça loolu la wootee mu ngi noone ngir mën a wëyal ak kookee di Gavi ñu jàppale ko mu gën a jàppale wut boppam avancé ngir mën a yóbbu Barça sore sore comme ni Barça amee yaakaar ci moom mu ngi noonu gars yi looloo nekkoon xibaar jëmee ci bésub tey jii mën naa ni euh, septembre ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné goo suma chaîne YouTube bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa jëf